والعفاف والغنى ونسألك اللهم قرة عين لا تنقطع السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبوك جلدي مبوك تلسبكتاتي رأسيس لاشين سنغاليز ديسوات نيو يين سن اميشن باك بلا مويته نيو نوي لين زيارة لين بلو لين حق بل لين حق نيان يالله سنو بورم سبحانه وتعالى مدول لينيو سنبرتل تيجي جير من ديمي وعي لينيو يير تنبالا نسطرامي بحرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبارك الله رك نيغي اك يين رك باتاي تي كادو سانغ بي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم موم ميغا خامتيني ني آه، سونو سوفيتاج لا ادوناك الاخره فتبارك الله ناخ آه، بغ بغم اي خمم تيفم ييب موي نو خيتام سوفي الك يوم القيام يالا تودي كو تبارك الله موي كو ام نيوانتكي مي رحيم ku bëri yërmande gi moom yonent bi ci xeetam fa tabaarakallaahu su ko defee rek mu wax ci xadis boo xam ne euh, tirmisi jële ko ci abi alxuduri moo ko solo yonent bi ne ida asbaxa bna aadam fa in al aadaa kullaha tuawidu llisaan yaani tukaffiru llisaan yaquluun ittaqi llaha fiina fa innama naxnu bika fa in istaqamta istaqamnaa wa in iwajajta iwajaj naa wallaay ndeysaan yonent bi neena na bu doomu aadama xëyee nee na cër yi yëpp dañuy àndandoo dégg nga di muslu làmmiñ waaw di muslu làmmiñ ñoom ñëpp àndandoo cër yi waaw muy bët bi muy nopp yi muy bakkan bi muy euh, tànk yi muy loxo yi muy biir bi muy yëpp dañuy wax làmmiñ ne ko ragalal yàlla ci ñun ittaqillaha fiina waaw waaye waaye ragalal yàlla ci ñun ndax fa innama nahnu bika waaw ñun ñun ñëpp ci yow lañu sukkandiku yow làmmiñ waaw boo fa in istaqamta istaqamna boo jubee rek ñu jub boo jubee rek ñu jub waaye wa in iwajajta boo dëngee iwajaj naa ñu dëng ànd ak parce que bëriwaat na looxoor walla musiba bu doomu aadama bi dugg te làmmiñam moo ko ko yóbbee làmmiñam moo ko yóbbee waaw loo warul wax ba mu yóbbee la musiba mën nga caa sax dem ndungu sin te sa làmmiñ la ko yóbbee te lool waaw nit wax na kàddu ñu topp kàddu ga muy direeku ba ñu ne ko nuus téye ci bërëb waaw xañ ko biti nëbbu ko jant bi te làmmiña ma kon yonent bi nee na làmmiñ cër yi saay wu ñu xëyee muslu ko ne ko fexeel na nga ragal yàlla ci ñun ndax bari waañal lu ñuy dugg yaa ñu koy yóbbee te moom kat làmmiñ as yap su ndaw la su nek ci bir gi di wondelu wa papa day xeyne man sët boy tay journée tay bi ni ma sonné te kat yap wa ko wax de yow bi ngay ñëw di xey si LCS say nga jël bu fekkee amoo pass da nga dox ñëw bi nga ñëwee caméra yi sé loxo nga ko bi moy cadré muy gis xel mi moy travailler li ngay def ndax normal na wala normalul nga wàcc làmmiñ mi naan tey ni ma sonni moom lu ci yoonam te ma nga fa mu bokk <laughs> wallaahi ndeysaan waaw ni ma sonne tey te dara defu ko <laughs> ah. moo tax nag yonent bi naa ah, kon nag nañ ci bàyyi xel làmmiñ lu mat a moytu la fa tabaarakallaahu bari na daal doomu aadama musiba bu mu dugg làmmiñam ak ko yóbbee lu mu wax la tabaarakallaahu su ko defee yonent bi delluwaat ni sallallahu alayhi wa sallam ci xadis boo xam ne ibnu sani moo ko solo jële ko ci abi hurayra yonent bi ne iza stayqada ahadukum min manaamihi fal yaqul alhamdulillahi alladi radda alayya ruuxi wa aafaani fi jasadi wa azina li bi zikrihi waaw nee na sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam dellu na wax ni kenn ci yéen bu yeewoo jóge ci ay nelawam na wax cant ñeel na yàlla mi nga xam ne moo ma delloo sama ruux gannaaw ba mu ma faatee te waxoon naa la ko ne la dee nelaw maanaam nelaw deegu ndaw la waaw parce que jamono bi ngay nelaw a génn na fa nga war a yeewoo nag foofu lañ la ko delloo waatee mu installé waat ci biir yaram wi kon boo yeewoo santal yàlla mi rocc woon ruug yi te ba nga tëddee waaye delloo la ko ci bi nga xëyee nga mën a yeewu waaw cant yàlla gi nag bokk na ca julli suba waaw kon boo julliwul suba santo yàlla ci delloo gi mu la delloowaat ruux gi waaw parce que cant dañuy jàpp ni rek mooy li nga wax ci làmmiñ donc cant la waaye tamit cër yi di ko jëfe itam dafa am solo waaw sëriñ Tuubaa xadimal Mustafa radiallahu anhu mos na laaj dongo yi ko waroon na leen est-ce ce que xam ngeen lu yàq dugub lu yàq dugub am ñu ko tontu ne ko xanaa mooy togg loo mënul lekk lekk ba mu des nga tuuri walla lekk ba sa biir maari day taali doo mën a yëngu waaw ndax li nga lekk ci lu ëpp yooyu yëpp ci xeetu yàq la Sëñ Tuubaa ne leen waaw xeet la ci yàq de waaye yàq dugub mooy nga lekk ba suur reese la woo ko jaamu yàlla nee na ma loolu mooy yàq dugub waaw añ nga ba suur julliloo yàlla tisbaar julliwoloo tàkkusaan xëy nga ndékki julliwoo suba reer nga julliwoo gee waaw seetal loolu palaasu jullikaay yi yépp heure lekk la waaw su ko defee nag nga lekk ba sa biir fees nga am kàttan te am na ñoo xam ne tey ndeysaan fa ñoo tëdd euh, tey ay pervision la ñuy dundee waaw te ay multimilliardaire lañu xëy na wala ay boroomi million lañu boroom compte bancaire lañu mais tey ay pervision la ñuy dundee mënuñu lekk ceeb mënuñu lekk yàpp mënuñu lekk ganaar waaw bañ tëdd mënuñu faa yëngu yow yàlla may la xéewalu bàyyi la ak sa wérgu yaram xéewal la waaw may la loo dundee def ci sa biir am kàttanu mën a jëfandiku xéewal la kon delloo yàlla njukkal ca xéewal ga mooy la mu la sant ci wàllu jaamu nga góorgóorlu def ko su ko defee nag loolu lu am solo la sëriñ Tuubaa ne leen kon yàq dugub mooy nga lekk ba suur am kàttan reesale ko leneen lu dul jaamu yàlla su boobaa yàq nga dugub waaw waaye kon boo yeewoo santal yàlla mi la delloo wàtt ruux gi gannaaw ba mu ko roccee ca guddi nga deewoon xëy war yeewu mu delloowaat la roog yi yonent bi ne ko neel alhamdulillah allazi sant ñeel na yàlla bi nga xam ne radda moo delloo alayya ci man ci sama jëmm ji ruux sama ruux waaw wa te mu jàmmal ma fii jasadee ci sama yaram ndax xëy naa yëngal cër yëpp sawar santiiruma fenn fuy metti waaw kon nag ma sant yàlla ci jàmmal gi mu jàmmal sama yaram wi wa azina lii bi zikri yi waaye mu digal ma ma di ko tudd mu digal ma ma di ko fàttaliku mu digal ma ma di ko jaamu waaw loolu mooy xaddis boobu lay muy lu am solo fa tabaarakallah ba tey tirmisi solo xadis bi jële ko ci anas yonent bi ni izashtakayta fadaa yadaka xaysu tashtaki summa qul bismillahi auzu bi izzati llahi wa qudratihi min charri ma ajidu min wajaci haada summa arfac yadaka summa acid dalika witran waaw yonent bi nee na papa boo jékkee-jékki sentir ci sa yaram fuy metti neena na nga teg sa loxo ndeyjoor fay metti nga wax bismillah auzu bi izzatillah wa qudratihi min charri ma ajidu min wajaci haada loolu ngay wax par exemple léegi sentir nga ni bopp bay metti jëlal sa loxo nga teg ko ci nga wax bismillah auzu mooy maa ngi muslu bi izzatillaahi ci tedd ngay yàlla wa qudratihi ak kartanam min charri ci musibawu maa ajidu min waja'i li may sentir ci sama métit haada bii loolu ngay wax waaw nee na su marfa yaddaka nga yëkkati sa loxo su ma aait nga delloowaat ko ci waxaat loolu daalika witran muy nekk lu tóol maanaam def ko trois fois wala nga def ko cinq fois wala nga def ko sept fois maanaam dañoo bëgg mu tóol waaw xam nga deux dafa wéttaliku trois moo tóol quatre dafa wéttaliku cinq moo tóol kon def ko trois fois wala nga def ko cinq fois wala nga def ko sept fois waaw boo tegee sa loxo fi metti nga ni bismillah auzu bi izzatillah wa qudratihi min sharri ma ajidu min wajaci haaza nga teggi loxo bi delloowaat ko waxaat ko teggi delloowaat ko waxaat ko teggi muy ñetti yoon wala cinq wala sept su ko defee tabaarakallaahu loolu mooy li nga xam ne xadis boobu loolu la jàngale Tirmizi soloo ko jële ko ci Anas waaw fa tabaarakallaahu wala itam bu fekkente ne mën ngaa dem wuti paracetamol bu fekkee ba bay metti baax na di waaw paracetamol baax na tabaarakallaahu ndax ñoom itam ay ay ay ay médicament la yàlla papa wàccewul benn jàngoro lu dul ne wàcceel na ko médicament loolu lu am solo la xadis bi ñuy daaneel rek mooy euh, yonent bi fi mu waxee ne iza asaaba ahadukum musibatan fal yaqul inna lillahi wa inna ilayhi allahumma indaka abdilni biha xayran minha waaw rawahu maaja an abi salama nee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bu fekkente ne ni kenn ci yéen musiba dal na ko sa doom dee na wala sa papa dee na wala sa euh, xarit dee na wala sa jabar dee na maanaam musiba bu dal ci sa kaw rek wala yaa ngi dox fakkastalu sa euh, weewu baaraamu tànk teggee ko yooyu yëpp ay musiba la wala yaa ngi doon wàcc escalier yi barasti ku daan sa tànk damm yooyu yëpp ay musiba la su ko defee nee na yonent bi nee na waxal inna lillahi wa inna ilayhi rajiun loolu la ñuy wax waaye da ngay dégg naan inna lillahi wa inna rajiun rajiun loolu du kenn du loolu du kenn du loolu di waaw inna lillahi la ñuy wax wa inna ilayhi rajiun ci yàlla la ñu jóge woon te ci moom la ñuy dellu waaw loolu ngay wax musiba bu la mënti dal rek waxal loolu teg ca allahumma yow sunu borom indaka ahtasibu musibati yow lay sàkkoo muñloo sama musiba bi ma dal waaw yaa ma ci yaa ma ci doy fekk maanaam yaa ko mën a fegal dégg nga fa jur nii yal nag ma ci yool maanaam yal nag ma ci fay ci muñ ko muñloo sa jëmm waaw wa abdil nii te nga ma lu ko gën par exemple sa doom moo faatu nga ne yàlla muñloo naa la sama doom bii nga jël ndax ci yow lañu jóge woon ci yow lañuy dellu maa ngi lay ñaan nga rafetalal ma sama muñ waaye te nga yool ma ci remplacer ma ko lu ko gën loolu laa jullit di def waaye du saalit fa tabaarakallaahu wala nga ñàkk sa jëkkër yennu say loxo wuy man yàqu naa wuy fu ma jëm foo jëm la alxaaji Maxtar Seck Mboro waxoon nee na boo amaatee beneen jëkkër am nga foo jëm waaw <laughs> ah, waaw amaatee beneen jëkkër rek léegi am nga foo jëm su ko defee fa tabaarakallaahu jullit du saalit euh, lépp lu la dal rek delloo ko yàlla te xam na yàlla mooy dogal moom mi la bind wàccee la fi fa tabaarakallaahu sa dund ni mu war a dérouler yépp yàlla programme na ko saay woo xëyee rek malaaka yi dañuy exécuté fa tabaarakallaahu li ñu cërale woon ci waxtu jeex na ñu sant ñëpp gërëm ñëpp gërëm suñu cameraman Papa Kara tabaarakallaahu ñaanal ko yàlla yàlla may ko réussit yàlla may ko xaalis bu bari may ko soxna su baax fa tabaarakallaahu Euh, macha allah gërëm Xaadim euh, Gueye gërëm euh, Pape Sarr ëmma fa tabarakallahu ñoom ñëpp sant leen gërëm leen sant suñu soppe yi fa tabarakallahu suñu soppe yi HLM parcelle unité 6 Thierno si Cissokho parcelle waa Gueule Tapée waa Jekko yi waa Caaro yi waa Tëngéej yi fa tabarakallahu ñoom ñëpp suñu soppe lañu Mouhamadul Bachir Diouf HLM Grand Médine soxna Oumy Gueye fa tabarakallahu ñoom ñëpp ñu sant leen kon daal di daje incha allah semaine prochaine ci kattan yàlla bu baaxam ki nekkoon ci waxtaani mooy seen mbokk daara oustaz Mor Diouf wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسأل